voilà donc gars yi ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax euh, xam naa nag du ñàkk ci yéen comme ñun moom Sénégal bëgg nañu foo lool du ñàkk ci yéen ñu bari ñu ngi seetaan li ñuy tuddee Coupe d'Afrique waaye dama bëgg rek ngeen concentré wu sur l'essentiel dañu ne focus deux mille vingt quatre euh, ñu bari ci yéen xam nañ ne dossier Ousmane Sonko conseiller constitutionnel daf ko manan chambar manan càmbaraat dama duggaat ba ci bir xolat dossier cour conseiller constitutionnel bu Sénégal bu Badio Camara jité dañu don xolat document Ousmane Sonko résultat yi la di indil euh, de notre frère Amadou Ba mu Pastef euh, bo leen demee ci page pas Facebook am aussi di ngén ko fa fekk Oui, décision bii le conseil constitutionnel diap. Dafane, ne baye xel bu baakha a baakha baakha baax analyse yi duñ ko révéler yi duñ ko révéler conseil constitutionnel dans sa décision arrêtant et publiant la liste des candidats à réintégrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral Madame conseiller constitutionnel Dougalat nañu Ousmane Sonko ci fichier électoral de toute façon dans le fichier électoral lui reconnaissant lui reconnaît Nous reconnaître l'intégralité de ces droits civiques Madame conseiller constitutionnel du Sénégal reconnaître na droit Ousmane Sonko civique yi yëpp pour ne waa jii de mën naa nekk kandidaa waaye ñu déglu ngeen déglu léegi tout ce qu'il lan lenn rek la ñu toppee président son ko ne amu ko bu leen fàtte waxoon nañ leen ko ndax dem demoon na caisse des dépôts et de consignation ba ayib dafe gars yi jox ko document mais document biñ ko jox dafa am li desoon léegi lenn rek lañ koy rapproché mooy il rapproche le défaut de l'attestation maanaam boo demee euh, déjà ñu bari dañu war a xam lii caisse de dépôts et de consignation Ousmane Sonko chèque certifié la fa yóbbu euh, certified check maanaam chèque certifié mooy cheque boo xam ne daanaka da ngay dem banque nga am fa xaalis nga ne leen bëgg naa ngeen jox ma nangam ci chèque un chèque certifié mooy loolu léegi boo demee waa conse waa conseiller waa caisse des dépôts dañ lay jox reçu maanaam ne la waaw yow sa xaalis bi jot nañ ko léegi dafa war a am leneen lu tudd attestation léegi attestation boobu nee nañu loolu la ñu amul donc loolu rek la ñu mën a gàllankoore le président Ousmane Sonko te attestation boobu kan moo koy joxe mooy ki nga xam ne moom moo jiite caisse des dépôts et de consignation muy nitu Macky Sall bandi boobu nekk caisse des dépôts et de consignation waa ji Sall ki nga xam ne maanaam moom ak Ousmane Sonko lim ko meree du benn affaire rek de kooku moo fenoon dem ci euh, euh, euh, maanaam frère u fay Faye Sall bi muy waa ji frère u Marème Faye qui euh, fait Mansour Faye Koko Mo demoon Mansour Faye voilà Ousmane Sonko daf koo vocal vocal la même personne donc encore une fois li ñuy approché Ousmane Sonko c'est l'attestation de caution que le directeur de la caisse des dépôts a bloqué illégalement estimant que Sonko n'était pas sur le fichier électoral Les le conseiller constitutionnel en excluant la radiation, la contumace, vous l'avez conseiller constitutionnel radiation, contumace ba dindi nako, radiation bi aussi ci liste électorale donc lenn ba encore Mou, mou, mou ne euh, euh, contumace est le pourvoi de l'État contre l'ordonnance du président du tribunal HDC a considéré que le la candidature de Ousmane Sonko n'est viciée que par le défaut de caution Madame, lenn rek la ñu Ousmane Sonko fi mu ne nii caution Ousmane Sonko il ko xam xam na problème de 30 millions Nous avons tey bu ñu ne Ousmane Sonko 30 millions 500 000 sénégalais ñoo koy 30 millions donc l'eau du défaut encore une fois résistance bi ça a fait ses fruits ça a donné ses fruits mais sénégalais nous continuons continuer résister parce que quatre caisse des dépôts et de consignation nous ñëpp xam nañu ne kii fa nekk Macky Sall moo ko fa teg kooku rek moo bañ a jox Ousmane Sonko attestation pour ne ah jotna khalisam. Lolu loolu rek moo gàllankoor candidature Ousmane Sonko que le recours recours bi est déposé avec les preuves de forfaiture du DG de la CDC voilà aduna bi yëpp ngeen déglu teg recours manam yóbbu nañu recours pour woné né li tax Ousmane Sonko indiwul attestation bi wa CDC ñoo nek di tek ay dil di def ay Ousmane Sonko jotul l'attestation. donc je le lis intégralement en français et je le répète en anglais et je le répète en mandingue et, autres voilà euh, le Conseil constitutionnel a annulé la radiation pour contumance de Sonko il y a une chose capitale et importante que les analyses n'ont pas révélée le Conseil constitutionnel dans sa décision arrêtant et publiant la liste des candidats a réintégré Ousmane Sonko dans le fichier électoral, lui reconnaît l'intégralité de ses droits civiques. Tout ce qu'il rapproche à sa candidature, c'est le défaut de l'attestation de caution que le directeur de la Caisse des dépôts a bloqué illégalement, estimant que Sonko n'était pas sur le fichier électoral. Le Conseil constitutionnel, en excluant la radiation, la contumance et le pourvoi de l'État contre l'ordonnance du président du tribunal HDC a considéré que la candidature de Ousmane Sonko n'est viciée que par le défaut de caution. Le recours est déposé avec les preuves de la forfaiture du DG de la CDC. Voilà, Mbadi Mandinko, l'afta même foralier. Eh, Ousmane Sonko la candidat ya ye même fo ko ha ya la candidat ya déposer les conseils constitutionnels ya muta ku kilindoronde la iko million tan sabo men ñanta jo la caisse des dépôts et de consignation ko wolle man sonka kayto diyala parce que yalon caisse des dépôts et de consignation ila keba men bije Macky Sall le akije kalabante yala wala ko ha ate o document o dila Ousmane Sonko la san ya rapproché wo drone la san wol fana ye recours kele ye document ol naati ye landi ye be sindi melmu conseil constitutionnel fananti ye Ousmane la de, la kayitol be i sontala le i sontala candidat yala iko bari ku kilin drone ne, ne dasata je womu eh, caution ñinati voilà million tan sabo ñing sai Ousmane Sonko la avocat ye recours kele inchallahu rabbi wo rokuroɓe tambirale ntol ɓe gadduwa ntol ɓe gallo ntol ɓe gantewo siti inchallah ousmane sonko ɓe kala candidate le inchallahu rabbi en 2024 voilà donc euh, siɓɓe amen fulɓe joni noon candidature ousmane sonko ko hunde wotere nangi ɗum hunde wotere nden hunde wotere koɓe mbi ɓe ɓe itti continence o ɗum ko eh, komi haalata ɗo ko ma faamon ɗum eh, yimɓe amen fuutankoɓe nane tan candidature ousmane sonko conseiller constitutionnel no jaɓi ɗum no min potini kono mbi tan ko hunde wotere tan manki hen ɓe itti continence o ɓe itti forfaiture ji ɗi faf ko hunde wotere tan manki hen ɓe mbi ɗum ko déposit mo waɗi e eh, eh, cdc caisse de dépôt et de fof noon meɗen gandi ko neɗɗo makki sall woni caisse de dépôt et de consignation joni noon mbaɗi recours avocat sonko ɗi mbaɗi recours pour holla ko bandiyagal waɗi o wonɗo caisse de dépôt et de sali okkude ousmane sonko attestation par ce que ousmane sonko nawi kalis mum ha jonni ɗum joni noon sénégalais fof no andir noon inchallahu rabbi ko ousmane sonko ko hunde wotere tan manki mo ko attestation on attestation kadi ɓe mbaɗi appel cdc e, e, e, o à la dg de la cdc inchallahu rabbi joni direction générale cdc o recours o mba pour holla ousmane sonko ko candidat ousmane sonko tawa rokkino kalis o dg eh, cdc nomi haalanta on ni tan gandiron nine ousmane sonko si allah jaɓi si menen fof men darima men kaɓi ousmane sonko wonat candidat 2024 e ousmane sonko wonat président 2024 ok eh, mbaɗema ɗo kon kon fo doni ko baman an ou fanan ba fe ka fam ya, menye Ousmane Sonko ka dosye la. Donk ou, eh, menbe Ousmane Sonko ka dosye la, eh, zizi ou menye eh, konsey konstitisyonel la. Wou lou ko, ko Ousmane Sonko la dokiman ou menbe nanan, ko Ousmane son a be la. Ko dokiman, kelendron ne manke la. Wou ye atestasyon e, atestasyon men yi kalon, ko, et caisse des de consignation directeur yi Macky Sall laccee ɗon ɗon waccee kelen o wolema son ka papier wo papier ɗum kowma ka o di cogo men na e ousmane sonkola avocat u wolu fanan ka ko men koso ousmane sonko ma se ka ko caisse de dépôt et consignation bandi men be Macky donc euh, aw k'a lɔn fana ko apelu kɛra inshallahu rabi apelu kɛra wolu bɛna apelu lajɛ wolu b'a faamuya ko caisse de dépôt et consignation document min mankɛla ko caisse de dépôt consignation directeur nanbara cɛ a bɛ baara la Macky Sall le wale a ma d'a ma voilà donc an bɛɛ b'a faamuya ten quoi a nun bara marhaba a maren conin ko n'a faamu ndaga ye hibane kottenda ousmane sonko candidat hunga sasa kundu kenya joladi ka danginiya inchallah o sugana duwa o sugana duwa inchallah danginiya eh, mon frère Kaïs Fof l'international bonjour comment tu mon frère eh, mon neveu ça c'est mon neveu Kaïs Fof voilà un, jeune infatigable voilà gars encore une fois maren coninko hiɓega sigi igama dunge usman igam ima baray de konna diga diga men famuyna parce que har sawra wa appeli ndabal ni inchallahu rabbi ken appeli wakillenga iti hibana kotti anda kayti num manka hibane kotti ken nyanda usman sonko kayti num manka asuga tu mogobedi ken ni attestation attestation be ga giri de dépôt ado consignation hibe ga sigi attestation ke ga makite caisse des dépôts de consignation serebe ga no maki salla ndawara no ngani nambarante nyani a bara na kayti ke kini usman sonkoy parce que watu nantirantaraga na hoho dambedi iga na raga ken iga na kina ibane wallahi billahi anyi dangini lenki ka inshallah rabbi koron kontine on on kontine pousen denga usman sonko dangini ade pasque gadaraga keɓe owa purufu litinina koyi nanti i nambaran ñancigi ousmane sonko gabadangi seretana heti inchallahu rabbi juge nu gayda me kahu awa ken kayiti ganari aɗo purufunuku ganari inchallahu rabbi xawa muku nanti ousmane sonko ni candidat nga 2024 ousmane sonko wañana sénégal cinquième président nga ngaxa su kuñini ngaxa xantana ngaxa mamana uh, eh, in english at last eh, today as we have the results of Usman Sonko candidacy as the at the Conseil Constitutionnel, at the uh, Madam Counseling Council, Conseil Constitutionnel of Senegal. So therefore, uh, they said all the charges against Usman Sonko are dismissed. The only charge Conseil Constitutionnel is holding at the moment that's keeping Usman Sonko from being a candidate at the Senegalese presidency is that they want to see that he paid the deposit. In order to be president in Senegal, you have to pay a 30 million CFA deposit, which Usman Sonko have deposited. But the director of the CDC have refused to give him something called attestation, meaning proof that okay, the money has been received. So therefore, they said that's the only proof they need to see in order to accept his candidature. I will continue to tell the Senegalese people and the Gambian and all our neighbors who are engaged in this fight to keep pushing, knowing that inshallah Rabbi Usman Sonko will be a candidate in 2024 as soon as is confirmed by, again, an appeal is underway, which his lawyers are going to prove that Usman Sonko has indeed deposited the money. And the only reason why he hasn't received the receipt is because the case de Depot the Consignation Director is a puppet of the Senegalese president who in turn refused to give the documents to Usman Sonko. I thank you all. God bless you. gars yi di sant di gërëm ma indi leeral bii rek comme tey xam Coupe d'Afrique tàmbali ñu bari seen xel dañuy génn ci lii nga xam ne moom mooy li ñu gën a ñor muy candidature Ousmane Sonko moo taxoon ma bëgg ma indil leen lii incha allahu rabbi yóbbul leen ko yéen ñëpp ci maanaam lakk yi ngeen bëgg yëpp incha allahu rabbi gars yi le vingt cinq février Ousmane Sonko day bokk te Ousmane Sonko day doon président wu Sénégal ñu ngi jaajëfal waa France gis nañu cent vingt cinq millions presque cent quatre vingt dix mille euh, euros ngeen dajale ñu ngi rafetlu waaye Amérique mooy premier ba léegi yéen a jël deuxième garaawul Italie jël troisième Espagne yéen it ñu ngi leen di xaar incha allahu yéen tamit xeex leen ngeen dal diggante deuxième ak troisième ak quatrième ngeen xeex foofu ngeen bàyyee Amérique premier toujours ñun ñooy premier incha allahu rabbi comme ni ma leen ko waxee deux milliards la ñu soxla bu leen fàtte on a besoin de deux milliards deux milliards buñ ko tegee ci loxo Insha'Allah rabbi waxuma la midi à 10h du matin insha'Allah, nous ñu lem lepp palais de la république ñun ñep ñu lekk fa ay sandwich di président Ousmane Sonko mu ñëw ñu inaugurer ko président Nous lolu nak nañu continuer résistance Ousmane Sonko 2024 bu soobee yalla moy don président au Sénégal wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.